Totokobay. الحمد لله الذي أغناني وأعزني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 wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di ñaan borom bi subhaanahu wa suñu nuyoo fekk leen ci jàmm jàmm àddina ak àllaaxira nañ ko yàlla jagleel di ànd ak yéen ci Ali Imran TV comme niñ ko baaxoo di defee ci suñu émission bi ñuy wax chumuliyatul islam la globalité de l'islam tey nag ñi ñëw ak yéen ci ay actualité yoo xam ni lislaam am na ci baat am na ci reponse am na ci solution am na ci ay orientation yu spéciale moo tax ñu tuddee euh, émission bi la globalité de lislaam woo wane ne l'islam amul lenn lu nit di soxla ci kaw suuf wala mu xam ni dafa soxla ñu orienté ko lu dul rek moom am na ci benn wala ñaar walla ñett wala lu ko ëpp ci ay orientation wala ay solution mbokk yi émission bi nga xam ni moom moo wees ci chumuliyatul islam muy la globalité de lislaam ñu ngi leen doon junjal ni am na ñetti saar yoo xam ni yooyu daanaka boo koy jàngat da ngay ne saaru société la projet de société la wala projet saar la yoo xam dafa ñëw uniquement pour régler la vie en société waaw bu maanaam nit ñi naka la ñuy dundee ci pénc mi bu ci njëkk muy suratu nuur mooy surat la lumière muy surat numéro 24 suma ma juumulee 64 verset la saar woowu ñun ñëpp li xew suñu réew tey Euh, xewoon na démb lu mel noonu xewoon na alxuraan wàcc pour régler situation yi mel noonu pour régler ko toutes les générations yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci kanam ñaareel bi mooy suuratu al ahzab mooy surat les coalisés mais surat numéro 33 mu nekk 73 versets su ma jumlee surat boobu tamit dafa ñëw uniquement pour régler problème société daanaka waaw problème société problème pénc mi problème doomu aadama yi ñetteel saar bi muy suratul xujuraat muy surat les appartements muy surat numéro 49 moom tam 18 verset la saar woowu tamit daanaka euh, su ma jumulee actualité mardi bi al oustaz ñëw na ceeg seen Mbàkke Sylla al oustaz al am euh, Sall ñëw na ci ak ki nga xam ne moom mooy Oustaz Mbacké Sylla maanaam wa in taifataani minal muminina tatalu suuratul xujuraat 18 aaya la 18 mais ak neexoon tey saar woowu tey i a yi a sëriñu daara yi ñoom ñëpp ñu jël ko jàngat ko génnee ci ay leçons génnee ci ay solutions génnee ci ay orientations ñu dem ci mboole mi jàkk ñu tasaare ko fa ñu ne Sénégal bu ñu xëyee aljuma bii di ñëw na ñépp xutba ci lii ñu gis li li euh, li ñuy wax euh, Ligue des imams waaw e prédicateur du Sénégal ki ko jiite mooy imaam Dame Ndiaye hafizahullah suñu pàpp ju baax jooju mu woo imaam yépp wax ak ñoom communiquer ak ñoom waaye jël ko aussi ut ay boromi xam-xam yoo xam ne yàlla dénk na leen ci wàllu wàllu communication ñu mel ni al oustaz Alioune Sall ak ñu mel ni moom yépp ñu jox leen ko ñu ne mboolem tele yi nekk ci Sénégal mboolem yi nga xam ne moom mooy moo xam télé euh, YouTube yi la mboolem bërëb boo xam ne rek nit mën na faa dem wax penc mi ñu déglu la ngeen demal ñu fa ngeen waxtaanal ñu fa lii muy suratul xujuraat mooy surat les appartements muy 18 aaya bu ko defee ñu tànn ñoo xam ne ñoom ay diplomate lañu dañoo mën a wax ak ay kilifa moo xam kilifay aada moo xam kilifay diine ñu dem ci ñoom it aussi tamit ñu jox leen message bi mais surtout kilifay aada yi parce que kilifa diine yi comme ñoom ñooy taxawee lii kon ñoom seen ñoom ñi ngi ci biir ñoom ñi ngi ci biir déjà ñu wax ak parti bi nga xam ne tey ñooy yore pouvoir wax ak parti bi nga xam ne tey ñoom ñoo yore wàllu opposition wax ak tamit askan wi li mu nekk loo xamante ni buñ ko defee ci kàttanu yàlla dinañu génn ci li nga xam ne moom la ñuy dund jamono bii nii te ñëpp jaaxle lool lool ñëpp a jaaxle te lépp dara warulu ko lu dul rek bu ñuy bi ñuy dummooyee téere borom subhanahu wa taala dafa am yoo xam ne soo ko jéggee rek après da ngay dugg si àll boo xam ne mën ngaa dajeek lu ne mën ngaa dajeek lu ne donc alquran noo sori sori sori sori ci mbir te mu mu mu nekk loo xam ni jaarul yoon saa yoo ko laajaatee nga interroger ko rek mu ne la amul problème ñëwal trop amul problème léegi nii la jaaral fii bàyyil nii doxalee ko nii waaw kon suratul xujraat boobu ma ma ma ma bamtuwaat ko mooy surat numéro 49 képp koo xam ne jot nga ci émission wu tey bi maa ngi lay ñaan nga ubbi suratul xujuraat surat numéro 49 les appartements 18 verset kese la nga liir ko soo ko liiree nga jéem ko méditer xool won ko say mbokk say xarit parce que ñun xam nga dañ jàpp ne alquran <laughs> dafa ñëw rek pour wax ak benn régime benn groupe groupe boobu tamit li mu wax ak ñoom mooy nañ dugg ci jàkkee julli bu ñu paree pare nañ weeru koor ñëwee ñu ñu woor bu ñu paree pare nañ ainsi de suite ñun loolu lañ jàppee alquran kese alors que lépp la lépp lépp ba ci nit ki na muy solo na muy dëkkee ci àddina na muy def ba bànneexu ba noos ci kaw suuf na muy def ba am li ñuy wax euh, bonheur li muy def ba nekk ci jàmm muy la paix li muy def ba mboolem réew ju développé ci àddina bi ma cité si réew yoo xam dañ jàpp ne duñu ay réewu jullit comme États-Unis Europe Asie par exemple su ma nee Asie ay Chine ak yu mel noonu nga xam dañ jàpp ne ñooñu du diine moo leen tax a jóg ñoom leneen moo leen tax a jóg nañ dund seen dund defar seen àddina noonu ñu tabaxee seen àddina ba mu jag noonu yëpp alquraanul karim bàyyi ko ginnaaw ndax boo delloo ci ay jàngat ci ginnaaw ñu ne la développement yu yëpp source bi gongeekuwaay bi baas bi lislaam la lislaam na mu tëralee li lépp lu ñuy wax atte la wala justice nga xam ni borom subhaanahu wa la mu wax mooy wasamaa rafaaha wa wadaa al mizaan al asamaan na mu koy yëkkati ko toojee na mu ko euh, téye ci justice la ko téye ci maanute ci li nga xam ne moom mooy équilibre boo xam ne bu yéeme loolu yépp mu ñuy jàngal wa wadaa al mizaan gis nga allahu alladi anzala al kitaaba bil xaqi wal mizaan yàlla wàcce téere bi waaye téere ji gis nga alquranul karim nu muy doon doon alquranul karim bu maanute am buñ ko tegul ci maanute du am benn sens moo tax mu ne wal misaan kon mbokk yi wa in taifataani boo demee ci suratul xujuraat boobu de da ngay fekk aaya boo xam ne aaya numéro bi ñaata la ti euh, mooy numéro 9 waaw aaya numéro 9 waaw lan lay wax mooy boo leen fekkee ñaar ñuy xëccoo wala ñuy xulo wala ñuy jote walla ab groupe wala réew ak moroomam wala walla wala bu mu si mën mu ci mën a doon rek li ngeen war a def mooy na ngeen fexe ba ñu juboo Oustaz Alioune Sall hafizahullah al Oustazul Jalil al Hakim mën a jàngale lool mën a jàngale lool mu ne yàlla du santaane lu kenn mënut du tere lu kenn mënta bàyyi kon bu ba mu nee fa aslihu baynahuma na ngeen fexe ba ñu juboo ngeen defar seen diggante réflexionner seen diggante fexe ba jàmm am fexe ba ñu toog à taabal ñu déggoo taabal de négociation li tubaab yi di woote yépp waa àddina alxuraan jàngale na ko mi ngi ci biir te guerre boo gis ci àddina première guerre mondiale jaar na fi deuxième guerre mondiale jaar na fi lu ne jaar na fi mais fi ñu mujjee rek mooy négociation waxtaan lan moo tax la ñuy mujjee mënuñu ko njëkkee kon ñu ngi woo réew mi ñu ngi woo président de la république di woo képp koo xam ne yaa ngi jokkoo ci moom ñu ngi lay woo ci lii ñu ngi woo képp koo xam ne tam yaa ngi ci parti à l'opposition moom tamit ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp tamit ci lii nga xam ne moom la ñu wax léegi ñi ngi woo askan wi aussi tamit ci li nga xam ne mooy dialogue muy waxtaan il faut ñu waxtaan xëccoo bi jaru ko weesu nañ léegi kii moo tooñ ak kii tooñut léegi fa ñu fa ñu toll mooy nañ toog ñu waxtaan ndax leneen lu ñuy def lu dul lool rek ñun ñëpp a ki rëccu ëllëg te xeeb baaxul bu ñu xeebante bu ñu xeebante bu kenn xeeb moroomam bu kenn xeeb moroomam la ngay xeeb ëllëgee moo lay gaañ la ngay xeeb ëllëgee moo lay indil ay jafe-jafe la ngay négliger mën na am sa réussite ci loolu la nekk la ngay négliger amaana tamit sa torox tànge sa échec ci lay jóge aussi moo tax bul sous-estimer dara état bi ñu nekk ci pouvoir bu ñu sous-estimer li nga xam ne mooy opposition bi am ci réew mi opposition bi tamit bu ñu jàpp ne lu ñu mën a def rek mun nañ koo def génn ci du noonu kon mbokk yi lañ la ñuy woowee ñoom mooy Sénégal ñun ñoo ko bokk. te li tax ñiy wax ci lii parce que lu ci am rek nu mu métti métti métti nu mu tuuti tuuti tuuti sax laa bëgg a wax sax kenn ku ne si ñun dina ko yëg waaw nga xëy rek war a liggéey mënoo génn liggéey loolu déjà coono dal na la yow maanaam muccoo si amul kenn koo xam ne tey jii ni mën ngaa assurer ni ëllëg lay xewi yow doo ci bokk wala sa njaboot du ci bokk wala say am di jàmm duñ ci bokk abadan waaw kon moo tax ñëpp ci war a wax ku ne acteur nga war a doon acteur de paix acteur boo xam ne dangay dox jàmm acteur boo xam ne da ngay fexe ba li nga xam ne mooy tooñ wala jalgati bi nga xam ne moom moo fi am mu jóge fi kon loolu mooy li nga xam ne loolu dañ ko war a taxawe mu nekk loo xam ne loolu la alquran di woote moo tax alquran jox ñu saar mel nii muy suuratul xujuraat waaw léegi bu demee dem dem ba nag am ku nangu ku bañ ki bañ nag ñun ñëpp nañu boole suñu doole ki bañ nañ non moom buggul lu dul rek ay rek moom moom bëggul jàmm alxuraan ne nañu coaliser ñun ñëpp ñu fexe ba téye loxoom ba du fi def leneen loo loo xamante ne wuute nag jàmm kon mbokk yi suratul xujuraat bee ngi nii bàyyiwul dara bu suñu diggante niñ ko war a doxale xool aaya bi si topp mu ne innamal na ixwa mu ne croy croyant yëpp ñu gëm yëpp yëpp ay mbokk lañu te ñun ñëpp a gëm waaw Sénégal amul koy dajeel lu dul am na lu mu gëm lu dul gëm na borom subhanahu wa taala même chrétiens yi yàlla lañ gëm waaw dañoo gëm yàlla ñoom léegi nag naka lañ gëmee yàlla ba xam nangu nañ ko nanguñu ko nag loolu beneen chose la waaye ñëpp a gëm kon ay yu gëm rek a fi ne mu'minun rek a fi ne billah léegi nag ku ne sa ngëm nag yàlla kay moo koy peese moom loolu domaine am la waaw loolu du suñu domaine ñun waaw tey jii ni man mënumaa juger ngëmu kenn kenn mënul juger tam sama ngëm kon noonu la moo tax loolu ci borom bi lay dellu waaye nag moom li mu li mu li mu namm suñu ak li mu bëgg suñu lu mu ñu sant mooy nañ fexe ba doon ay mbokk mbokk bi mooy ñu téye ñu jàppante ñu nekk benn ñu créer créer li nga xam ne mooy union parce que l'union fait la force waaye li ñuy def nii kenn du ci bénéficier wu waaye réew mi rek moo ci dellu ginnaaw kon fa aslihu bayna axawaykum nañ ko rafetal nañ rafetal ànd bi nañ rafetal doxali nii lii ñaaw na ci Sénégal xasante waxalante lu ñaaw xawante sutura waaw fexelante ku nekk di xëcc fee waaw kon wala tanazaru gis nga bu leen xëccoo fa tazhaba riixukum fa tafshalu wa tazhaba ngeen échec ba pare seen force daal di dem donc lii lii lii esprit la boo xamante ni bi esprit de groupe la te loolu moo lay yóbbu ci li nga xam ne moom mooy renaissance développement émergence stabilité la paix bonheur lépp looy wër ci àddina rek lii moo la ko mën a jox te oxident nii la ñu mel buñ ko deful woon du ñu àgg fi ñuy àgg waaw moo tax ñu régle problème yi yëpp problème justice problème éducation problème problème yëpp ñoom ñu régler ko ñoom parce que xam nañ ne moom moo mën a yàq moo mën a freiner seen développement kon laa kenn ku ne rek xoolal li nga xam ne moo la war nga def ko amal jom la'allakum turham bu fekkee ñu jàmm bu ñu bëggee am jàmm rek nekk ci yërmande lii rek lañu mën suñ ko defee rek alhamdulillah nga avancé tuuti xoolal rek wala boo delloo ci ginnaaw parce que ñëwuñu woon pour jàngat saar bi yëpp waaye boo delloo si ginnaaw ci wàllu information ni ñu koy joxee ci boppam xoolal li saar bi wax in jaakum faasiqum bi naba in yenu parce que alquran xam na ne société bi am na ñoo xam ne ñu dëng lañ ñu ñeme yàlla ñoom fos information rek la ñuy joxe fa ñu jëlee micro di wax wala ñiy bind wala ñiy euh, communiquer ñu ngi wax loo xamante ne ay kàcc la ñi ngi bind loo xamante ne bi ay toox yi doon la ay sos la ak ay fenn ak ay tuumalaat def ko business def ko marché def ko outil doo xam ne ci la ñu amee lii euh, tooyal seen seen seen seen seen seen seen seen poche wala lii duufal seen poche loolu alquran avertir nañu ne bu ñu jotee information nañu ko certifié nañ ko seggi nañu xool ni vérifier information ba xam wér na wala wérut waaye malheureusement duñ ko def malheureusement lu ñëw rek ñu jël lu ñëw rek ñu bàyyi mu jàll moo tax gis nga fi ñu jëm ñu demaat delluwaat ci suuf jëmaat ci kanam ci wàllu li nga xam ne moom mooy diggante yi wo jéggi na nit ki kenn ak maanaam kenn ak moroomam mbooloo ak moroomam réew ak moroomam mais xeet ak moroomam ñu ne kii làkk bii la wala kii ethnie bii la bokk borom bi nee na bu dee góor wala jigéen wala mbooloo ci jigéen wala mbooloo ci góor bu kenn xeeb moroomam bu kenn sabote moroomam bu kenn takkal moroomam ab étiquette boo xam ne wala ab ko wala ab doxalin boo xam ne bu ñaaw di ko sabote moroomam di ko kukkalee moroomam laa yasxar qawmun min qawmin laa ilaha illallah mbokk yi moo tax ma ne nañu jàngal xuraan nañ jël saar wi ñu jàngalaat ko sénégalais yëpp ñu xamaat ko ngir ñu dellu ginnaaw te yi muy yi ne ci saar bi yëpp moo ne moo ne fàng ci penc penc mi tey moo fi nekk mbir bu yéeme allahu akbar laa yasxar qawmun min qawmin gis nga benn xeet bu mu kokkali bu mu ñaawal bu mu saboote moroomam allahu akbar donc lii suñ ko toppoon tey jii nii du jeex kon benn kii la boo xam ne tàmbali nañ ko tey incha allah bu soobee yàlla alxamis bii di ñëw nañ ci ñëwaat encore continuer ko continuer saar bi dañuy jël point yi nga xam ne ñoom ñoo gën a euh, fréquent moo gën a fës tey jii ni si suñu société te ñuy koy dund muy ay ak actualité incha allah ñu waxtaan si indi ci li nga xam ne mooy euh, ay ay ay jàngat ngir ñun ñëpp ñu mën cee jëriñu di ñaan borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp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 283 38 38 su ma yëbbitik nekk fii ci Parcelles Assainies marché Dior ku lu waajal foo wàllee